ma jey Ndiaye ñi gën ma xam si Ndiaye Poobar taximan VIP ñu war a dem si élection yi ah man de bu ma sañoon moom wax dëgg yàlla du ma seetaan tele lu bari ndax liggéey bi du la ko may parce que da ngay teel a xëy guddee wàcc boo wàccee da ngay sonn sangu tëdd war a xëyaat suba xam nga ak dëkk bi nu mu mettee nii mais man daal bu ma sañoon sama sagon ah, taximan dañu dañuy woteel Macky Sall waaw parce que Macky Sall euh, defar na tali mais maa ngi dégg nit ñi ñu naan dafa eggale Abdoulaye Wade moo ko sumboon mais état continuité la ñu wax waaw comme moom eggale na tali pour nga dem léegi Thiès vite fait la Touba Ila Touba bi xam nga gars yi sonnatuñ dem lu taf taf teer baa ngi nii donte indi na ay jafe-jafe si dëkk bi mais sance la te sànc bu amee faaw dem dikk bi am problème ñi ñaan daal yàlla falaat ko ñu jàppale ko tamit ba mu mun a yeggale lii mu sumb yëpp daal man loolu laa gis. gars yi de man bu doon sama sago mooy affaire yi du dóorante daal affaire yi sa carte la. te bu ñu nangu tamit kenn di leen forcer si loo xamante ni du noonu daal parce que koo fi jox sa carte ëllëg tamit ngir xaalis bu bu faloo ak ay mbokam lay falul ñoo ñu noonu di lay indi si ay coow ay ay ñoo ñu seen doom yi kenn gisoo leen si campagne yi gisoo leen si politique bi seen doom yaa ngi si kaw Europe di jàng kon ñun ñi nga xam ñun ñooy baadoole yi nekk fi Sénégal ñu ñoo war a xam suñu bopp xam ñu bañ ñu dugal si yenn yi man daal loolu laa gis ah. di ñaax nag sama mbokk taximaan yëpp ñu woteel Macky Sall. Abdoulaye Wade moom xam nga rek mag buur la mag moom lu ko neex lay wax waaw pour man daal moom comme ni Abdou Diouf def daal la waroon def comme toogoon na si jaamu ba dem si jaamu pour man daal sama xalaat mooy même bu ñëwee réewam la senegal mënuñu ko tere mais bu ñëwee mu na mu dal daal bañ yee benn fitna waaw parce que dëkk bi du dëkku fitna daal dëkk sëriñ sëñ Bamba xam nga bu doon fitna la sëñ Touba duñ ko yóbbu si géej gi mu ñëw ne ñi ko yóbbu woon jégal na leen xam nga bu doon dëkk fitna la kon dañuy xeex te boobaa mooy loolu mais dëkk bi du dëkk fitna daal dëkk jàmm la waaw maa ñaan ñaanal ñëpp jàmm nag di waa di ñaan yàlla yokk xéwal yi mais temps yi nag tali bi dëgër na trop. pour nga am versement sa problème la fi mu ne nii ndax campagne yi da ngay tourner ba sonn doo gis koo yëpp waaw nañ ñu jàppale waaye ñun taximaan yi si réew mi lañ boo ko de may gërëm Waly Seck nag di ko bu baax Baye woy na taximaan yi lu ma neex waaw bu ma sañoon nag maamam dinañ gise Wally Seck xaw ma nan laay def ba gis ko nag mais maa ngi koy bëggee daal politiciens yi laay ñaax pour vélage bi am ci àll bi vélage bi ñu jubli ngir yàlla ba bu ñëwee Dakar na ko invité vélage bi am ci àll bi xëyul Dakar dafa xat dafa xat quoi vélage àll suñu nan politique ku ne wax la intéressé wax li nga xamante ne moo la mën a convaincre fu nga jël réew wax la ñor ñun ñoo ñun xool ku ñu neex wala ki nga xamante ne moo amal suñu wala ki nga xamante ne tey bu nga wootee suñ njëriñ la ñu ñu wootee ko ñu xeex ak xuloo taxuñu wootee ko kenn xeex xuloo taxuñu wootee kenn dañu wootee ngir ay programme day teg say programme programme yi ngay teg say programme yi ngay teg moom la ñu xool buñ fekkee sa programme arrangé nañu ñu wooteel la fekkee programme arrangé ñu xool wootee ko ci wàllu politique mais fekkee nag kanta ci wàllu opposant comme ay Abdoulaye Wade yooyu rafetlu ma comme ay kàddoom rafetlu ma ay kàddoom seen xel fa mu toll ak ñun suñu xel fi mu toll am ñoo xam boo waxee rek li nga wax la jël utiliser ko maam def ko arme di ko xeexee te addo da xewul noonu pour moom mag la suñ maam la instant moom moo ñu war a wax loo xamante carrément moo ñu mën a convaincre ci lenn mu xool ko neex mu ànd ak moom ñu woote leen diw ñu xool kooku dem wootee ko mais pour moom warut a woote violence parce que violence baaxul day yàq te voyage ci réew amul njariñ su réew mi dafa xat soxla mu fi voyage pour man nag jàmm mooy lépp politique bi lépp jàmm ci xaj élection yi yàggatul dimanche la ku ne woote ki gañe gañe ñu nekkaat ci leen lën ni xëy liggéey jee na mais kanta ay voyage yooyu moo dëgg yàlla bëgguma ko mais man moom ki may wootee xam naa ko ki may wootee xam naa ko ki may wootee man Idrissa Seck mais dama koy dama dama koy dama koy convaincre ni ko dama naan ni ñun dañ lay sànni suñu carte ngir lan ngir nga defaraat jikko yi ngir lan nga defal suñu réew waxuñu nag defal suñu réew nga fal ba pare def lu la neex réew mi ñoo ko moom buñ sànni suñu carte boo faloo boo defee lu ñu aarasul soo ñëwee ñu sànni keneen